donc maa ngi leen di gërëm bu baax a baax di leen di sant di wax ne au nom de la confraternité au nom de la solidarité confraternelle euh, ñu ngi masaw bu baax a baax des médias euh, ñu ngi ñu ngi ànd ak D-Média ci naqar gi nga xamante ne xew na tey jii parce que naqar gënul nga am sa entreprise de presse am ñu jóg ñu ne dañ koy tëj e loolu je pense que c'est un précédent dangereux pour la République parce que média euh, constitution moo ko consacré dafa am taxawaay bu mu am nguur gi am benn taxawaay ce n'est pas pour rien ñu nekk c'est le quatrième pouvoir aujourd'hui ñun ñëpp tey de la presse sénégalaise est solidaire et cette solidarité yàgg naa ko woote entre confrères te loolu moo taxoon ñu sos association bi tey jii cette solidarité boobu dafa war a wéy mooy solidarité ñun ñoom ñu nekk benn la concurrence même ay picc yi nekk suuf dañuy am concurrence mais li nga xamante ne moom mooy l'intérêt général nañ ko privé nañ ko privilégié mooy ko ñu ànd alors euh, vraiment li am nii ma koy naqarlu bu baax a baax parce que je suis je suis j'ai une entreprise de euh, te xam naa lu ci nekk Et j'appelle solennellement le président de la République mu siffler la fin de la récréation mu bañ a yem ci yég mu jéem a xam xëy na yëg yëg na lii am na yëgal nañ ko lii am na à travers des documents certes wala à travers yenn ci ay ay ay ay mbir mais bëgg naa mu xam pour mu xam nag il faut qu'il appelle le principal concerné le principal concerné c'est le président Bougane Gueye Dany Quand, quand je dis Bougane Gaydani, c'est le président de l'entreprise de presse, moi, des médias. Je ne parle pas de Bougane Gaydani, homme politique. Nawa Bougane, waxtaan ak mom par rapport à cette situation pour que mom président de la République, Mouham, nous sommes dans un contexte, un contexte extraordinaire. D'abord, il y a le contexte Covid-19, il y a le contexte élection locale et il y a le contexte politique. politique bi ak local bi bokkul je m'explique ma li tax li tax ma wax local mooy lan le président de la République moom moo am les prérogatives nommé ki mu bëgg ak poste bu mu bëgg te poste yooyu souvent dafa am soubassement politique politique sa responsabilité politique moo tax mu la koy jox yow bu la joxee mbir ci su parce que tu es responsable politique pour prouver que yow yaa ngi liggéey yaa ngi def euh, li nga xamante ne moom mooy politique demal sur le terrain demal a la base nga liggéeyal ko nga defal ko li nga xamante ne moom mooy la situation politique. dafa am maintenant loo xamante ne mu ngi foofu mooy waroo basé wu ci instrument bi ñu la jox pour note keneen pour wan président de la République je non ce n'est pas loolu du sa prérogative du loolu la ñuy xaar ci yow ça c'est au plan politique. au plan élection locale est-ce que ki nga xamante ne mu ngi koy informer mu ngi koy yëgal parce que xamalugu ko mu ngi koy yëgal tant que moom woowul président président le principal concerné mënul xam mënoo am benn dans notre jargon nous euh, nous journalistes on dit il faut recouper les informations pour avoir la bonne information président de la République c'est le président de tous les Sénégalais il est au niveau top de l'information mais il doit recouper les informations pour recouper l'information il n'a qu'à le principal concerné te loolu mooy li nga xamante ne moom mooy la seconde situation politique la troisième euh, situation c'est paradoxal ci li nga xamante moom moo xew le président de la République ak Covid bi moom moo yëkkati en dehors même de loolu yëkkati 700 millions de francs CFA yokk ko ci euh, euh, aide à la presse mu devenir léegi un milliard et quelque pour sauver les entreprises de presse vous ne pouvez pas décréter loolu ba pare tey nga taxaw nga ne yow da ngay fermer une entreprise de presse qui a plus de 700 employés directs et indirects te loolu c'est paradoxal donc moo tax ma koy woo pour que mu dem vers mu mu informe def recoupement d'information en appelant euh, les responsables des médias ñu mën a toog ñu waxtaan la plus grande guerre guerre bu gën a mag c'est la guerre mondiale ci waxtaan la mujjee euh, dafa am ku may faral di wax ne dafa am ñoo Sénégal dañoo mën attee mënuñu attee xuloo mais dañoo xeex lañ mën a attee ñu ngi ci xuloo balaa ñu egg ci xeex bi nañu attee et kii war a mën a attee mooy président de la république moo tax ma koy woo solennellement mu saisiru dossier bi mu mettre fin à cette euh, à cette situation pour que les choses reprennent au niveau de D-Média parce que situation bi na jàpp ne ce n'est pas Bougane Gueye Dany seulement li la concerné mais c'est l'ensemble des travailleurs de la presse et ñun lu ñu tax jóg mooy que nous sommes solidaires à toute personne qui touche à une entreprise de presse ou à un acteur de la presse que ce soit technicien que ce soit caméraman que ce soit régisseur qui ku munti doon on est solidaire avec lui et au nom de cette solidarité confraternelle j'appelle solennellement le président de la République mu réagir par qui peut régler cette situation parce que c'est le président de tous les Sénégalais avec un T majuscule, c'est le président des fous, c'est le président des, des, des, des personnes vivant avec handicap, c'est le président des de, c'est le président de tous ceux qui se revendiquent sénégalais. C'est d'appeler le président de la République au dialogue. tout se termine autour d'une table donc on va dialoguer dinañ dialoguer loolu euh, je pense su ñu jógee fii léegi sànq may dugg maa ngi dégg Ibrahima Lissa di ci wax maa ngi koy gërëm bu baax a baax dinañ concerté wu ñu xool ban yoon la ñuy jël parce que balaa ngay def quoi que soi dangay ngay waxtaan ak ndey mbille gi dinañ Euh, waxtaan nan ki nga xam ne mooy le président de la république ñu apporté ko ñu ne ko lii mooy solution bi bu ci nangoo andu ci solution boobu te yaakaar naa ne du ko bañ solution boobu mooy la la solution la le dialogue et la concertation bu ñu àndee bu nangoo solution boobu ñu trouver euh, ñu ñu mettre fin à cette à cette affaire parce que euh, dafa am lu ma fàtte lu am solo en 2013 en 2000 en 2012 le premier er mai bi Macky Sall le président bi Macky Sall célébré en tant que président de la République c'était un 16 mai ce jour-là il avait demandé boobu la les entreprises de presse fixe mu ngi leen di toppee à 7,8 milliards de francs CFA yoo xamante ne fixe mu ngi koy recouvrer ba bloquer les comptes des entreprises de presse ci boobu président de la bi mu les acteurs de la presse le 16 mai le jour de fête du travail dafa ne fisc débloquer les comptes des entreprises de presse et privilégier le dialogue la même situation s'impose aujourd'hui j'appelle le président de la république en tout cas à dialoguer te loolu lañ koy woo dinañ waxtaan ak moom bu ñu génnee fii dinañ def suñu kéem kattan ba mun a waxtaan ak moom par rapport au dialogue maintenant nag bu dialogue bi amul nag bu loolu yëpp amul nag nous avons cette liberté Euh, euh, euh, qui nous est qui nous est réservé par la Constitution de manifester notre mécontentement à travers des d'autres actes comme la marche comme le sitting entre autres et je pense que à ce niveau-là euh, le SYNPICS sera bien placé pour euh, évoquer cette question parce que nous ne sommes pas syndicats mais nous sommes euh, une association de solidarité et cette solidarité véritablement dafa imposer wu fi fi fi ñu toll nii